waa tey nag dañu dañu daje woon fii tey euh, ngir euh, déglu benn étude bu ñu def ci euh, collectivité territoriale bi étude boobu li ko waral mooy que xam nañ ne Covid bi am na jafe-jafe yu bëri yoo xam ne moom la indi ci collectivité territoriale maire yi jànkonte nañu moom président département yi jànkonte nañu moom mais population yi seen bopp jànkonte nañu ak moom donc ñu ne woon nag comme ñun suñu wàll mooy gëstu pour xool nan la ñuy def suñu amee ay proposition ñu defal ko état ñu ne woon nañu euh, jël kenn koo xam ne moo ñuy accompagner ngir def étude boobu ndax ñun suñu jéego bu ñuy teg rek dañ ko bëgg a teg ci wàllu xam-xam ak ci wàllu gëstu eh, donc moo tax moo waraloon ñu am étude bi nga xam ne dañ ko doxal ci ci benn projet bu ñu tuddee OFLOC nga xam ne Union européenne moo ko moo ko financé woon ñu profité pour remercier ko ñu bokk ñun ak euh, programme USAID Gold waaye bokk tamit ak euh, programme national de développement local nga xam ne ñoo bokkoon étude boobu donc étude bi nag lii ko indi mooy surtout euh, ci wàllu Covid bi nga xam ne mooy benn ci crise yi nga xam ne moom la ñuy jànkonteel wax naa ne am na ñetti mbir façon crise yoo xam ne nañ jànkoonteeg moom benn bi mooy Covid beneen bi mooy wàllu changement climatique c'est ngeen ko seetloo te Dakar ak Sénégal ça l'a wax inondation yi fi am ci crise boobu la bokk benn crise bi nag mooy wàllu conflit soo xoolee Afrique tey sous région bi conflit yu bëri ñu nga am Mali am na fa même Sénégal fii am na fii au sud et cetera et cetera donc bi ñu xamee ne contexte boobu lañ nekk dañoo ne nañu jël benn ci euh, défi yooyu muy wàllu Covid daal di xool yan jafe-jafe la indi. mais du duñ yem ci jafe-jafe yi rek pour gëstu ko xayma ko dañoo bëgg tamit suñ jógee ci jafe-jafe ñu xool lan lañu ci fan la ñuy sukkandiku pour def relance ndax jafe-jafe boo ci nekkee rek war nga sëntu ëllëg naka nga ciy génnee donc étude bi ñu def ni nag euh, ci loolu la ñu la ñu la ñu woon ne jafe-jafe yi am na ci ñetti fànn wàllu euh, euh, finance jafe-jafe am na wàllu euh, euh, gouvernance manam doxalin jafé jafé amna waye na tamit euh, participation citoyenne nit ñi nan lañuy ñuy bokk ci politique publique jafé jafé amna donc defar nañu ay recommandations yo xamné ñun mom lañuy teunk tay ngir djébal ko décideur public manam ministère yeeg les institutions yi nga xamné ñoy les institutions de conseil ngir ñoñu mëna ko teunk dal def ay recommandations pour la chef de l'État